mbokki xarit yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci Sen TV grand plateau tàmbaliwaat tey nag muy spécial Serigne Cheikh béto gis nañ ko tey 17 avril di bés bu rey ci cantakun yi parce que justement day marqué rencontre entre kii di euh, Serigne Cheikh Béthio Thioune ak kii di euh, Serigne Saliou Mbacké donc loolu rek mooy wane ne que euh, guddi gi tey nar na di nañ ko maggal bu rëy a rëy ma ciy ànd nag ak Cheikh Sarr Cheikh Sarr su ngeen ko gisee rek xam leen ni que surprise yu bëree bëri bëri mu ngi leen di xaar n'est-ce pas Cheikh di la nuyu. maa soxna Néné Aïcha ni nga ko waxee rek surprise yi dina bëri tey ndax eh, ki ñu fiy waxtaane moo ni toll te moo ni mel bu buñ ne Cheikh Béthio Thioune xel dafay dem ci Serigne Saliou Mbacké mm-hmm. tey nag jotaay bi looloo koy eh, looloo koy lamb ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax teewaayu eh, ñi fi teew ñëpp tey plateau bu riche la ñu am mm-hmm. te bu nen Aïcha ñëwee présenté ñi nga xam ne ñoo ne ci plateau bi danañ xam ne plateau bu riche la ñu am waaye du nuyu bu baax a baax téléspectateurs yi di feddale suñu kóllëre rek ñoom tey toogaay bi dafa ànd ak yeneen i toogaay ndax tey dañ fi indi ay addiya Cheikh Boy Béthio Thioune ku ko xam xam ko ci teraanga ku ko xam xam ko ci bernde donc téléspectateurs yi waxtu nekk bu ngeen duggee ci 88 628 89 90 88 628 28 28 heure bu ngeen duggee rek jàppale ni suñu leen jotee dinañ leen jox addiya Cheikh Béthio Thioune li ko tàmbalee ci vingt cinq mille deux cent mille trois cent mille ba cinq cent mille un million sax day amoon na fay am donc xéewal yaa ngi dugg si leen joti xewal yi waxtu nekk rek ñu napp kenn jox Cheikh man nu may def ba am ci 1 million yi. 88 628 89 90 yow xam nga. sama sama yaram bu tàngee yow mën naa jékki-jékki rek jox la chèque gu million. kon tey sa yaram dina tàng kon chèque yi dinañ dinañ bëri. xaar leen ko euh, chers téléspectateurs alors euh, di ci ànd également ak suñu papa Abdoulaye Lam euh, ñu koy nuyu bu baax a baax grand plateau namoon na la papa. xam naa dinaa dinaa ñëwaat ci yow sa sa sa micro mooy xaw a def yëfu yëfu séeréer tàmm naa di leen tooñ euh, comme ni nga ko waxee Cheikh Sarr daañ ci mm-hmm. ànd ak ay gan yu rëy ay gan yu màgg daañ ci ànd également ak ay jàngkat yu mag a mag euh, dinañ ci ànd ak kii di jëwrin Abdou Karim euh, Mangane maa ngi lay nuyu bu baax a baax jëwrin di la dalal ak jàmm suñu plateau maa ngi lay fay di leen remercier di nuyu ñëpp di santaat bu baax ci ni ngeen ma dalalee ci plateau bi ak occasion bi ngeen ma may ma mën a fekkee lii ndax tey la 17 avril di suñu bésu sang bi Cheikh Béthio Thioune kon ñu ngi lay remercier di santaat bu baax di nuyu ñëpp waaw képp ku ñu dégg ñu ngi lay nuyu. macha allah euh, dañ ci dalal aussi kii di Cheikh Sadibou euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu ak jàmm suñu plateau. alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wa salaam ala asrafil anbiyaai Entre passer du temps dans les embouteillages ou passer du temps avec bébé, le choix est facile. Surtout quand on trouve tout sur Jumia.